dama bëgg a def ñaari précision quand même bon euh, gauche bi comme ni ma ko expliquer dañu bare et ni ñuy fonctionner doon benn moo tax su ñuy wax gauche souvent dañuy généraliser or waruñu généraliser kooku c'est pour tout le monde quoi ah pas seulement pour, pour tout le monde waruñu généraliser parce que du benn du ñuy fonctionner beneen précis deuxième précision bi mooy gauche bi dafa am nu mu évoluer et nu mu bindoo loolu daf ko topp parce que gauche bi dafa fondé wu sur un certain nombre de valeurs benn rek laa siy joxe mooy xaalis mosu woon nekk problème mu gauche mm-hmm. parce que on était encore plus jeune ñu daan sax euh, di <laughs> daw xaalis. mais ça se voit jusqu'à loolu changé na. Ah soo gisee ñi nekk dans les gouvernement et tout ça. <laughs> changé na voilà voilà léegi troisième chose euh, bi ma bëgg yokk du du précision mais information la mooy que gauche bi depuis un certain temps mi ngi commencé di def mutation mais mutation bi duñ ko mën a gis duñ ko mën a gis mutation bi nànk-nànk la parce qu'on est tellement divisé et tellement faible que une organisation comme ni nga ko waxee bu yeewu rek mën na. am ay masse ñu dem dem le dessus ensuite maintenant ajouter que y a une partie de la gauche boo xam ne ñu ngi ci Pastef mm-hmm. parce que Pastef am loolu un discours de gauche au départ mais après y a un discours de gauche parce que y a des gens yi nga xam ne ñoom est-ce que def ñu euh, ñoom ñëpp maintenant ils sont dans Pastef ce qui veut dire que gauche dafa am nekk dans Pastef am na ñoo xam ni ñu ngi nekk benno am na ñu nekk nekkuñu fenn mm-hmm. nekk ñu fenn maintenant si assises yi ñu defoon en fait parti yi nga xam ni am nañu doole yépp si bennoo ñu ngi si woon ak d'autres yi nga xam ni bokk ñu woon bennoo hmm. parti socialiste ñu ngi si biir AFP eh, mi ngi si biir ak euh, tous les autres quoi parce que dañ dañu considérer que ni gauche bi dañu war a changer de paradigme wartu nekk reste fii rek di def baser les affaires sur des questions idéologiques tout ça et cetera que question politique yi ñu war a jël en charge donc li ko doon wax naan est-ce que réalité bi daf leen dépassé loolu les comprendre nañ ko et si loolu la ñu nekk di di liggéey mooy na lañ jëlee en compte les réalités actuelles mais réalités actuelles yi mhm. dafa compliqué dans notre pays parce que non seulement il y a Sénégal ni mu bindoo au plan sociologique confrérique tout ça et cetera mais il aussi une évolution extraordinaire n'est-ce pas du numérique robotique intelligence artificielle qui joue voilà qui joue foofu laa doon ñëw qui joue et parce que kooku c'est la jeunesse qui prend ça en charge or à un moment donné et c'est la vérité soo foofu rek laay d'accord yow les partis de gauche yi dañu commencé woon foofu sax moo tax may wax dañu dañu commencé woon di da lañ koy waxee encore di màggat pour dire la vérité commencé woon di màggat naa on comprendre nañu loolu on s'est dit qu'il faut changer de euh, paradigme comprendre situation actuelle bi comprendre préoccupation bi comprendre enjeu et enjeu yi les jeunes c'est bokk mais pour moi les jeunes c'est pas quelque chose de général c'est vraiment des jeunes qui sont situés à un moment donné dans un pays donné